problem. Probably problem to come and do what Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No, next time we do it. Yeah. Oh, Gates. Babs, lan Rolex lii rek nyari lambu ñaari mag bu ma yëngal waaye jàpp si bu ma mais sa waay fii yëm na non Amérique yi Amérique mais mais fan. ah. donc Pape bu joxe location bi. donc bu joxe. bu joxe ah Mo Gates. ma lamp yi tàkk papa. yow. ci tabaski bi. gaa yi ngi ci biir gàll bi. you know. gaa yi ngi paare ci biir gàll bi. mais il fallait que ma génn. Dag benn temps tuuti di bal ñëpp ñu naw ba pare tamit di ñaan bal ñëpp baal ñëpp ak ci tabaski bi you know what I mean Eh papa yeah big bro encore ngelaw mënta fay lamp waaw ah, loolu am laaj borom sondel yi <laughs> jëlal Rolls Royce bi nànk ah papa big man come here for a minute rakam bu jigéen jël biyam bi ndànk. lu ñu bokk ñoom ñaar. lu ñu bokk ñoom xoolal faar zoomal ci faar yi. ah lii du 2000. ah man la may papa lii du 2013 de 2020 la. yoo xam donc mënu ko dugal conteneur da ngay xoos <laughs> ba dugal ko ci avion bi wàccee ko ndànk Dakar. Eh, mais borom sondel yi ndànk rek ay bruit ay ngelaw mënta fay ay làmp ñuy wax ñëpp ci suuf. maa ngi leen di dégg you know leen dafa leer ndogal cest à nangu ndogal si gëm yàlla lu bokk papa zoom ma nànk yaa ngi zoom zoom ma ci biir téléphone bi zoom nga ma maay seen bàyyi <laughs> <laughs> mais ñaar nga téléphone rek da war a balal. balal la balal balal balal balal for. mais da nga for for for. não não Lala pergi, Lala pergi. Pergi Aisyah lah, Aisyah. Aisyah, Aisyah, Aisyah. Menya, Menya. Wah, men salam. Men salam kapten. Memo. Memo. Memo. Memo. moo ngi jënd na Amérique fépp la yi tabax. ana bale bi bale bi xaaral non Amérique amul bale fii aéroport bi amul bale tamit. yéen a ko gisoon doo de nee na leen ngelaw mënta fay lam ay rapport la ñuy commencé dañ ko bale ay rapport la ñuy commencé dëgg neex waay 1500 dollars ci ay seconde. mais mais mais noonu comme je vous l'ai dit toujours. mais Mo Gates millionnaire en dollars milliardaire en français fa billionnaire en franc guinéen Kouka d'amani, d'amani, sa d'amani, d'amani, la d'amani, d'amani, metti d'amani, droit ay d'amani, d'amani, d'amani, dama ni da ngeen di tabax arrêté leen tabax amoo jënd na Amérique fi pour lay tabax a da ngeen di tabax waaye arrêté leen tabax amoo jënd na Amérique fi pour lay tabax ana bale bale ba xaaral Amérique amul bale fii aéroport amul bale tamit ndeysaan gil fëgg sa yéen a ko gisoon doo dee nee na leen ngelaw mënta fay lamp sa ndey bu dee joxe par <laughs> ay rapport la ñuy commencé dañ ko bale ay rapport